les patriotes léegi le président Ousmane Sonko est ci danger ci képp ku analysé, a analyser képp ku am discernement xam na président Ousmane Sonko est ngi danger. Je danger Dina leen expliquer lu gis euh, le système bi nga xamné dañ doon opérer à travers Macky Sall Macky Sall mi nga xamné ne moo sen élément jëlé nañ ko fi mais le système est toujours là te képp ko xamné ya nga xép système bi xamuloko le système est doté de puissance redoutable motax tax le président Ousmane Sonko nek ci danger ndax gis ngeen contre système bi nga xamné mom proposer les sénégalais à travers son excellence Bassirou Diomaye Faye contre système bobu non manam dafa am tendon d'Achille dafa am un point faible le système bi en s'attaquant à ce point faible maanaam mën na yàq lépp loo xam ne ñu ngi koy tabax déglu leen bu baax li ma leen di wax dama ne système bu bon bi identifié na faiblesse su système bi nga xam ne moom lañ fi bëgg a teg te mooy bu baax bi am na loo xam ne buñ ko roccee ci système bi lépp daanu lépp nërmeelu te xam ngeen kan moy le président Ousmane Sonko c'est le garant du nouveau système lepp mu ngi dépendre ci président Ousmane Sonko lepp lu ñuy def ni actuellement nouveau gouvernement bi plan d'action yi ñu am restructuration économique politique li ñu bëgg def yépp wallahi lepp kenn moy garant bi le président Ousmane Sonko bis vous ko éliminer nous avons té ñom xam nañ ko motax may may di wax sécurité président Ousmane Sonko bis buñu ko fowé ñu ngi ñu xamul investir pour sécurité Ousmane Sonko doyul Ousmane Sonko ay benn motard ñaari motard diko lépp lu de def ci sécurité président Ousmane Sonko man je vous dis que doyul Ousmane Sonko moi l'homme le plus protégé du Sénégal même plus protégé que le président de la République Je xam bu baax ce que wax dama ne tendon d'Achille système bu bees bii fi Ousmane Sonko ñoom bis bu ñu ko roccee lépp yàqu te xam nañ yalla moy def lolu dafa am ay leader yo xamné ñom ñoy nek le noyau central tant que ñom ñu ngi exister tant que ñom ñu ngi actif tant que ñom ñu ngi mën di manœuvrer manam kenn du mënal dar système bobu mais bis bo leen éliminer rek système bi ndërmeelu xamna naa baax li wax damay ñaan son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Faye même beaucoup Ousmane Sonko l'Ilahi lillahi wa rasuli renforcer renforcer sécurité président Ousmane Sonko L'autre ci def doyul L'autre ci def doyul renforcer la sécurité du président Ousmane Sonko parce que le devenir du système dépend de l'existence du président Ousmane Sonko